toog ci mbedd mi di xaar ndimbalu askan wi loolu la waay laago bi di dundee ñàkk doole tax na fu 5 heures du matin jotee dina ko fekk ci tali bi ngir mu mën a am lu mu dundalee njabootam. ci jënd ak jaay mais euh, aw ma aw bi xam nga rek boo jabootee loo jaay ba ko jox sa njaboot ma dem ba daanu aw ma fo bu ma xëyee rek dem ci tali bi. di sàkku ndimbal jox rek ma ñëw jox sama njaboot. maa ngi fay ba yenn saa yi une am looy saraxi sarax ma ci xale bu saqanee ma denc bu yor dee ndox mi bi mooy loolu noonu. ci gis-gisam feebar bi ko dal jàpp na ni rab yi papam doon fajal nit ñi ñoo ko wuyu si. bi may dal boobu xale laa xale laa parce que sama papa moo ko doon faj affaire yi ñëw ci man. ñoo polio waa ak xambari gi fa maam hmm. ak lu la war a dal tamit waaw loo xam ne ni war na la dal mënoo si dara. bare loolu Ndeye Awa Camara di yeewoo ci benn néeg moom ak juróom benni bantam. ñu ndaw ñi dañuy jàng mag ki moom dafa bàyyi ndax nee na daal instant bi mënul continuer jàngam ndax gis na maa ngi sonn dafa bëgg a dem yëngu ci leneen pour jàppale ma ku mag ki mu ci kaw kooku fan laa gis day dem. ci Colobane yëngu ci bagage fëgg jaay yi ñëw di ko jaay foofu sama wet ay jafe-jafe yu muy jànkonteel bokk na ci xeeb bi ko nit ñi di xeeb ba di ko bañ a luwe fu mu dëkk. wax dëgg yàlla du ñu am problème bu mag a mag a mag ndaxte dañu euh, manqué ku ñu jàppale dégg nga même luyaas boo koy wot sax duñ la wóolu à 100 pour cent pour mu luyee la kër yu baax yi que niñ naan kii xëy na du ma fay. beneen jafe-jafe muy jànkonteel mooy mbas mii nga xam ne dafa wàññi loolu li ñu doon am. te jotul benn yoon si ndimbal bi nguur gi jagleel waaye laago yi. ak reer daf lay tax. déedéet man léegi musuma jot dara musuma jot dara ci façon yooyu musuma ci jot dara man daal bu ma juree si ma yàlla boole sama njaboot gi ba tey maay dem uti ñëw jàppale leen waaye gisuma kenn ku ma ci fekk si wax dëgg yàlla xanaa ñi nga xam ne samay nit lañ sas nañ ci man ñu jàppale ma te yàlla tax. hôpital waaye bu dul loolu moom gisuma benn autorité bu ma jàppale walla ministre mbaa député mbaa gisuma ko ndax civil la Sénégal amoon naa fi problème loyaas ba ñu bëgg ma génne boobu dëkk moon fii sax fee laa dëkkoon mais bi ma fa demee wax dëgg yàlla sama lettre yaa ngi foofu ba tey kenn ma moo tax delluwaatuma fa. ca ndimbal boobu sax jàpp na ni mbir yi tëddeewul ñaaxaanaay. yooyu déggoo mën la dew ma ci yooyu dew ma ci ndax ñi ko def man de wax dëgg yàlla gisuma firnde ndax lañ naan buur aayul ndag yaa aay ñoo xamante ne si boo duggee ci façon boobu daanaka dañuy def genre commerce te loolu bugguma ko ñuy def genre commerce ndax léeg-léeg ma gis chariot ñu wàccee ko ñu ni waaw chariot wàcc na dañ leen koy jox mais da ngeen di indi temps moo ko gis ba taay bi moo tax association yi sax bokkoon naaj mi dama génn. dama génn loolu bëgguma ko booy dimbali ni da ngay dimbal te yàlla wala ah affaire baa nga poor de dafa la ngeen joxe dem dem jëli ko waaw kuy dimbali ni dooy def jël charge bi def lépp lépp dégg nga façon yooyu laa ci gis moo tax neexuma. nekk waaye laago teg si am tension ak jabet terewu ko benn yoon muy góorgóorlu moo ngi ñaan ku ko mën a dimbali. si wàllum dëkkuwaay. lu ndax xale jàppaguñ ci dara te dañoo tuuti moo tax faw ma def jom di dem di wuti pour mën leen ci jàppale du bëgg naa ku ma génne fii. bëgg naa ko ma génnee fii wax dëgg yàlla bëgg naa ko ma génnee fii ndax sama sama naqar la daal waaw ndaxte boo xësee ba yor njaboot da dëkk foo xamante ne si da nga leen mën a yar mun leen a defar ba nga xamante ne si duñu benn mbedd daal te jamono ji dafa naqari léegi waaw da yor sa gone sonn ci bay bëgg de kee jóge fale bàyyi ba sam xëccaale sa parce que loolu taluma ko ki moom baaxul kër gi moom baaxul wóorul en tout moment ñu ngi naan tey lay daanu ak suba lay daanu ndax bi muy daanu nii wallaay la azim fooguñu ko moom yëguñu ko dafa bi ñu nii fii waaw fii ci kaw nii fekk daanu néegi yëpp am ay kii yoo xam ne nii fissure yoo xam ne nii wóorul daal à tout moment mën na ñëw sunu kaw xanaa yàlla rek a ñu suturaal loolu yëpp balay am nag bëgg naa ko ma ci jàppale loolu dama ci lancé di ci ñaan ndimbal ku ma jàppale ma génn ci kër gi kër moom bëgg naa fi génn dëkk fu yaatu ak sama njaboot gi daal loolu laa bëgg loolu daal sama xalaat guddeeg bëccëg wër naa nag ba sonn même lu yaas mais li mu ma am. muy ñaan di ko jàppale fi ñàngum doomam yi di ci jiital ki nga xam ni moo di première dame. waaw maa ngi lancé appel Marème Faye ndax wax dëgg yàlla xamuma ko mosuma ko gis mais gis dégg naa muy dimbalee doomu aadama yi te maa ngi bëgg mu dimbali ma te yàlla tax dama jaboot njaboot bu sew sa suma fenn sonn naa feebar dab na ma damay am problème mu garab am problème mu lekk am problème mu naan sama doom yaa ngi nii sa suñu fenn liggéey ñu dañu obligé di bàyyi jàng moom dafa bëgg ku jàng ndax gis naa muy def lu bëri di jàppale xale yi jàng maa ngi koy woo di ko ñàkk sàkku ndimbal ni muy dimbalee doomu aadama yi mu gestu ma jàppale ma dimbali ma man nag maag Amadou Ba euh, ko ñu yaam ko ñu yaayam laa dëkk Amadou Ba finance yaayam laa dëkk foofu laa dëkk man waaw foofu laa dëkk maa ngi koy woo bu déggee sama appel dama bëgg mu jàppale ma kër gi ma dëkk baaxul yàqu na wóorul te tout moment maa ngi ragal mu dal ci sama doom yi waaw maa ngi ragal mu dal ci sama doom yi sonn daal maa ngi koy woo daal moom. waaw maa ngi woo ñëpp képp kuy liggéeyal yàlla tey jàppale néew di doole tey def social maa ngi lay ñaan ndimbal nga jàppale ma utal ma fu ma dëkk ma ak sama doomi yi sama doom liggéey ñu mën maa jàppale parce que dama jabet dama tension te sonn naa daw naa bay bëgg a dee. donte moo ngi dund ay jafe-jafe yu metti mbégte rekk ngay gis ci xar kanamam moo ngi ñaan ndimbal képp ku ko tane ngir mu soppi anam bi muy dunde